yéen ñëpp rek maa ngi leen di boole nuyoo bi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ma tibbeeku ki sama xol jëmee ko ki seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. may del ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak ñi bokk bànneexal suñu xol ci jëmmi sayidina muhammad mii de di sangab woy njëkk ñeek woy mujj ñii di jëmm ju tedd joo xam ne ku ko sopp yàlla soppila ci mbon yóbbu la ci mbaax soppi la ci texe di yóbbu la ci texe soppi la ci xay yóbbu la ci jàmm soppi la ci xataayu wërsëg yóbbu la ci yaatu soppi la ci feebaru jàngoro yi xol yi yóbbu la ci ak wér ak dal fe soppi la ci lépp lu la laxasu lu laxasu wut yóbbu la ci ak làqartiku waaye soppi la ba jëlee la ci tëjëg bunt musiba yeeg balaa yeeg nattu yeeg gàllankoor yi tëju gu dul tijjeekooti yóbbu la ci tijjeekoo xéewal ak jàmm ak suturaak naataangeeg barkeeg texe tijjeeku gu dul tëjooti loola lépp sopp sayduna muhammad moo ko mën a mayee ndax cofeel daal lu foor la cofeel rek moo tax yàlla bind mbindéef yi cofeel rek a tax yàlla bind yonantu bi ba bindaa bindaale mbindéef yi ci yonantu bi cofeel a tax bu yowmal qiyaamee jaamu yàlla guy des ña soppante woon te yàlla tax bañ texe dañuy continuer soppante al axilaau yowma idin baaduhum li baadin aduwun ila al muttaqin istisnaawu googa yàlla nañ ca dugg cofeel moo la mën def loolu métti ba pare te doo yëg ne métti na moo tax koo mën a ànd ak ku mën a doon soo bëggee noppalu mu noppalu rek ànd leen ci cofeel muy diggante sa waajur ak doom bu fa cofeel newul rek bu def defee méttee bu def defee yàggee rek noonoo dox fa diggante jëkkër ak jabar bu def defee bëree rek bu ko cofeel lalut mujj yàqu mbaamu naqar yi diggante sëriñ ak taalibe bu ko cofee lalu rekk bu yàggee kenn ku ne ci ñoom dana mujj tàyyi waaye cofeel lum lal day gën a avancé day gën a yokk day gën a barke day gën a sekki day gën a dolleeku ndax moo lay def loolu métti ba pare te doo yëg ne métti na yonentu bi nag yàlla ko soppal boppam yonentu bi ne tamit saxaaba yeeg jullit ñi ñoo ko soppal seen bopp looloo tax benn journaliste américain dafa bind téeméeri nit ñi gën a réussir ci àdduna bi mu seggaat ca biir téeméer yooyee ne ñoom ñëpp sayiduna muhammad moo ci gën a réussir gaw ma ko bokkuma moom diine de waaye moom kenn laa yëg ki yàlla jox ñaari mission mu fexe ba réussirel ñaari yëpp te benn tardé wut ci muy mission waa duna ak wàll axira yëpp avancé mu réalisé ko moom kenn laa gis mu war a jug di jëm ci xare saxaabaam yëpp kenn ku ne fa la xare ba fekk rek lam la fekk ngay bàyyi dem xuyu ji tàggatuñ la ci armée tàggatuñ la ci ngànnaay ak nañ koy tiiree nañ koy téye waaye bu wootee xare daal baykat ba wéet wala wéer jaaxaayam ba ak sox soxam ba sàmm ba wéer xetam wa manise ba wéer siham ba muy xaree bant ya mécanicien ba wéer keleem yaag ñoom ñëpp sol lañ sol rekk fekk ko ca xare ba ànd ak loola buñ demee ña tàggatu woon ci xare yàgg ci xam nañu téye ngànnaay ak nañ koy tiiree ñii ñoo leen di lu ko waral ñii dañ leen tàggat ci cofeel ñee ñi tàggat leen ci jëmmu te fekk na tàggat ga cofeel jiituwut ko moo tax koo bëgg a ànd tati bëgg ànd ga sax te doo sonn du sonn rekk fexeel ba cofeel lal ànd ga bu ko cofeel lalee rek dafa tëbb ci géej ak xéewal ak naataangeeg dal dafa tëbb ci géeju xéewal niiru dal di ko gunge ba mu mujj teeri ci tefes ak jàmm nga am ko moom tamit mu am ko yal na yàlla defal ñu ko te defal leen ko ci barkeeb sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama yonentu nga ne ma wax nga ma ne du moromam yonentu yàlla Adama ndax sujjóot ya moom bu ko ko malaaka yi defalee wenn yoon la kii nag yàllaam la moog malaaka yi ña nga dappetu di ko julli ca moom wax nga ma ne du moromam ti yàlla Idrisa dayoo mayam nga mooy yëkkati ki ko yàlla yëkkati ci war aw fax naaw makaanan aliyan kii nag am na yëkkati na ko ba ca qaaba ni aw adnaa du yón du du moroomam yonentu yàlla noox nangu ñaan nga ko yàlla defaloon diire na ñaar fukki at yonentu yi moom ñaan ak jooni jooni la ko yàlla defal tàggat gim tàggat mala ya ci benn gaal yonentu xam na ko lu gën a foor loola waxoon naa la ko nga ne ma yonentu yàlla Ibrahima ak daana xiram ya ma ne yàlla Ibrahima ak layam yu leer ya man a yonantu bi tamit layam yu leer ya ci la tàggatee ñu féttarlu woon ñëpp loolu lépp waxoon naa ko ba ci yonantu yàlla Muusa ma ñëw ak yow nag ci Yuusuf Yuusuf mi lee yàlla mayoon na ko téel ko jant bi bul fàtte ne moo doon xeex ak jabaabiriina ya ci ngoon ak aljuma te jant bi xasee soreek dañuy dugg ci samedi te samedi moom dafa araamoon ci ñoom ñi di ko xeex booba yàlla nag téyel ko jant ba ba mu duma leen am victoire bu leer nañ ñi jant ba door di soo yonent bi xam na lu gën a foor loola bul fàtte ne yonent bi téel nañ ko jant bi keroog ba mu rañaane xiifee yëpp dajee mu ne xéewal ak yàlla mënuma koo nëbbu départ rek nekk Ummu Haani jëm ca gara place Qurayshi ba Ummu Haani téye ko mu biti ko loxo xëccu rek xëpp ko doole dem na wax na leen xewal gu réy gi ko yàlla defal ki dem baytil muqaddas ci génn guddi gi ñëw ci guddi gi te booba doxa weer dem bi doxa weer dikk muy ñaari weer ñu ne ko wax ñu na dëkk ba mel ak jàkka ja mu wax leen ko fekk dañ ko defal tayul muqaabala fa mu taxaw ma nga jàkkaarloog loola ñu ne ah bu demu timit li mu wax de nii la demee moom léegi nag ñu dem seeti Aboubacar Siddiq ne ko yaa fi dàq dëggal sa waa ji de xanaa li wax ñi ma koo dëggal mun a lu wax ñu ne ko moom de nee na dem na ci tabaarakallahu baytil muqaddas ci génn guddi gi ñëw mi ngi nii xegsi na mu ne yéen a ñàkk fayda te ñàkk fulla moom mii di ma indil ay xibaar yu bàyyi ko ci asamaan ma di ko dëggal su ne ma dem naa ci asamaan timit ma gëm ko waxuma la baytil muqaddas foofa nag la ñu dàkkantale abubakar as siddiq martabatu bu kawe la boo xam ne ulamaawu mutasawifiina yi ña ngi koy wax ne xutbaaniyatul uzma moo ko gën a moom rek ko gën a kawe ci maqaama yi maqaamar siddiqiya loola yàlla defal na ko ko moom Aboubacar yonentu bi ne leen romb naa seen njëgg ma ñu ngi ñëw ci yoon man mii sax am na ki njëgg moo xam ne naan naa ci seen soow ma maam naan sama daxa ba gi sax tiital na leen ba ñoom ña nga daw tasaaroo waaye maa leen di xamal ne bu àllarbaa ci ngoon dana ñu ñëw bu jant bi so dana tombé seen njëg mi dugg si ñi xaw a nag keroog yàlla teel na ko jant bi ngir dëggal wax jooju mu waxoon leen ba ñoom daal ba ñuy dugg si rek moo tolloog jant ba di sox di dugg ca asamaan si. dugg ca niir ya laa bëgg a wax kon yàlla téel na ko jant bi ca yoon woowa waaye defal na ko lu ëpp loola yàlla den de dellool na ko jant bi keroog xasuwatu xandax ba muy nelaw ca luppab Seyduna Aliyu ba ba muxtaaram tàkkusaan ma paase yonentu bi pare njàpp rek Aliyu jàpp mu ne yow yàlla kii dafa nekkoon sa mission wa sab maa ngi lay ñaan nga dellool ñu jant bi ba mu yegg ca première muxtaar ma ñu bokk mën a julli tàkkusaan keroog yàlla dellool na ko jant bi ba ca première muxtaar ma ñoom ñaar ñi bokk julli yonent bi jiite ko kon nag yuusaxu buñ ko téelee jant ba keroog ba muy xeex ak jabaabirata ya yonent bi téel nañ ko ko ba mu bàyyi ko ca rañaan ga waaye dellool nañ ko ko ca xasootu xandax kon loolu moom kenn moo ko am ñaareel bi boo jëlee yonentu yàlla daawuda dayoo mayam gi ko alquran tuddal mooy doj yay sàbbaal tabaarakallaahu ñoom ñi di ko dégg moom mu koy dégg yaa jibaalu awi bihi maahu wa tayra wa alanna lahu yonentu bi loola yàlla tuddal daawuda yàlla defal na ko sayduna muhammad bul fàtte ne yonentu bi keroog xare badar téye na ay xeer yi jembaraay ñaan ñaanam googa xeer ya di sàbbaal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ca ténkam ya mu teg ko ci loxol abubakar mu sàbbaal mu jàllar bi ko sànni leen ko ne shaahatil wujuh mbooleem ko xeer ya laaloon ca badar rey nañ la ci xarib Uhud naka noona tamit bul fàtte na ñam sàbbaal na ci kanamam moom yonentu bi sallallahu alayhi wa benn yahudiyatu bu bon benn xare ci xaswatu bani hawasin mu laaj li yonentu gën a bëgg ñu ne ko yàpp lum gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko xeel yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yahud ba yahudiyatu ba tooke yàpp wa xëppal i tooke ga ca yeel ya gaa ya teg rek ñu teg ko rek ne ko maa ko dimbalee tey xare la du ngeen mën a togg tey du ngeen am jot wax rafetal rek teg yonent bi teg ne kon nag bismillah am na siise siise sax bu njëkk mosa lekk yonent bi yëkkatee xel ba rek xel ba sàbbaal wax ca kaw ne ko naa mas moomun man dañ maa tookee yonent bi ne teg leen bu kenn lekk fekk am na siise siise bu sonn mos mu fa la doxee sax génn àdduna moo tax saa yoo bokkatee sa kilifa ci bool bile bul njëkk a lekk bàyyil ba mu lekk kuñ garant la kuñ garant wut dafay war a nekk ci gannaaw ku ñu garant waaye nag si siise yu bari yaay sama kilifa gi yëpp bool bi bokkut ci de moom kay bu bool bi xasee jot kenn ku ne sa kilifa ak bopp nga wala boo amul sens sax booy kilifaam moom mu mujj soppeeku sa kilifa fekk bay bool bi di jeexee moo tax kon yonentoo yàlla defal na ko ca loola yàlla defal na ko tàggatal ko picc yi maanaam ñiy sab tàggataloon na yonent yàlla tàggatal picc yi moom tamit yàlla tàggatal na ko xayawaan yi ñi nangul ko luñ nangulul kenn ku ci am problème ñëw wax ko ko di ko sàbbaalal di ko màggal yàlla joxoon na ko ci weñ gu ñuul nam ko tàggat leen daawuda wa alnaa lahul hadiida yonent bi doj yeeg dafa nooyoon ci moom ba buy dox ci kekk mujj nooy loolu jàngoon nga ko xareeb Uhud gis nga ko jeng na jëm ciw doj ngir nëbbatu fa la ca xewoon wastatara min al mushrikina yawma uhudin maala bi rasihi ilal jabali su ko defee loola tamit yàlla defal na ko ca ba booba mujj dugg kenn gisatu ko ca loola kon loola yàlla defal na ko ko gis nga ko tamit xuuri màkka yi am na ca doj woo xam ne du du du ko romb mukk lu dul ba nuyu na ko waaye am na sax lu gën a foor loola am na ci xare xare boo xam ne ci gëg tàndarma la yëkkati rek ab car jox ko saabi yu mu soppeeku weñ mu cay xare di gañe di duma xéeféer ya naka noonu yàlla defal na ko loola kon lam ko defal moo gën a foor lam defal yonentu yàlla daawud gis ko keroog ba muy rañaan yi wala ba muy gàddaay yi dafa dugg ca xuntuma rek jargoñ ba ñëw ràbbu fa euh, pitax ma ñëw nen fa ñoom ñëpp ba ñëwee tiim ko ñu ne maa fil xaari min arimi kenn nekku fi loolaa ko mujj sooy ba mënuñ ko mujj gis gis nga ko tamit yonent yàlla Suleymaan mayam gi gën a rëy mooy nguur gu rëy gi ko yàlla jox rabbi habli mulkan laa yambaxi li ahadi min baadi yonent yàlla jox na ko nguur gu gën a rëy nguur ak yàlla suleymaan ga ndax yàlla jox na ko caabi ndàmbi suuf kooku yàlla jox na ko mafaatiha xasaa'inil ardi yonentu yàlla suleymaan yàlla joxoon na ko ngalaw ba alquraan ne wali suleymaana riixa xudduwuha shahrun wa rawaawuha shahrun yonentu yàlla jox na ko noonu tamit alburaq ngalaw la moo gën a gaaw ngelaw bët ba daal mooy tànk tànk ba mooy bët ba fu bët ba tege tànk ba tegu mu dox ak moom doxab juróom fukki junnee xat li ñuy dox ci doxab juróom fukki junnee xat mu dox ko ci lu tolloog ñetteelu xaaju guddi boo xaaju guddi ñetti xaaj genn xaaj ba sax gudd mu dox ko ñenn ngeen ne buraaxa dem moo yéeg ak moom ba ci asamaan ñenn miraaj waxoon naa la ko ca ca israa ba ak miraaj ba demeet yàlla tàggatal na suleymaan jinne ya mu leen ni ñu koy tabaxale ki ay mosquée di ko tabaxal ay kër gis nga ko ñoo ko tabaxaloon baytul muqaddas moom mii tamit yàlla tàggatal na ko seytaan neeg ñi féttéer euh, gis nga ko moom sallallahu alayhi wa sallama fi mu jaar ak jinne yi jinne musu faa jaar ak jinne fi mu jaar ak ñoom jinne yi ci yonent bi lañuy ñuy muslu xamali wuñ dara ba gis nga ko daana xeew jinne yi xittewoo woon na xeew jinne ja ca kenoog jumaa ja kon loola moo gën a foor la yonentu yàlla suleymaan amoon suleymaan yàlla mayoon na ko dégg waxi picc yi yonentu bi xemutoon ci dégg waxi picc yi waaye mboolem xayawaan naat yi li ñuy sab lépp yonent bi dégg na ko xemut ca dégg na sax garab yi lañuy waxante ak doj ya ak mbooleem xet yi kon yonent bi du moroomam kenn yonentu yàlla yaxya mi doomi sakariya li ko alquran limal lépp wa aataynaahu l-xukma sabiyan mu nekkoon kuy jooy ci lu du dara nekkoon kuy dappetoo koor yonent bi yàlla jox na ko lu ëpp loola ndax yaxyaa mile nekkutoon ci jamonoy xiram jaamu xiram yonent bi ñëw ci jamonoy jaahiliya ci jamonoy xiram feeñ lool yàlla jox ko dégg ñaw looy waxtaaneek yonentu nga tudd turam lu ëpp junne kilomètres yonentu ba mën lay dégg kenn mënu koo jëw loo wax boo ñëwee ne la fa meekul sa gémmiñ gaa ngi xasaw yàpp kon yàlla jox na ko diqatul fahmi yàlla jox na ko tamit maanaam xatte ci ndaw bul fàtte na jëmm la woon joo xam ne ba mu nekkee ndaw bu mosaan a jooy weer wi mooy wàcc ñëw ci di ko nax ne ko lu nit jafe-jafe boo ne ko xoolal weer wi mu noppi tey nag man maay ñëw xool la weer wi ñëw di ko foxe wayu naaxi badrul mu niiru sabiyan wayu naaxi kay yazulal bukaawu la maam xalifa nges wax mu ne kon weer waa ñëwoon di tëgal yonantu bi eh, abbas bàyyi taxam baa ko bett sax moo tax moom mu bokk ci ñit gaaw gëm na yonantu bi keroog xare badar mu ñëw fekk ay weer wi di ko tëgal di ko nax mu ne xale bii de bu màggee dana feeñal mbir kon nga xam ne kenn du yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam koor moom moo ci mënoon ñëpp dafa daan woor ba timis jot mu jokkale ko ba ci xëllëg sa ba ci gannaaw xëllëgaat sa saxaba yi xiir di ko ca toppandoor mu ne déeréet nag inni abitu yutimu ni rabbi wa yasqini man sama borom dafa may damay dana may lexal dana may nandal luy loolu moom bu tëddoon gént lekk sax bu woo day regg donte ab yonentu di rek waxin la bu géntoon mar bu naanee ci gént gi bu xeewoo dafay màndi donte moom dund na ba génn àdduna mosta màndi wenn yoon ci àdduna bi moo tax ku ko jokkalee ku ko toppandoor ki jokkalee koor da nga mujj takk bal na ragal yax yaxyaa googa ba ngay dégg dënd ba di fuur yonentoo xam na lu ko ëpp daa toog dend ak moom rek nga dégg dënd ba ji wañax mel ni kawdir guy togg buy togg yàpp ngir ragal yàlla ak mag ko mën koo wéetal kon yonentu bi sallallahu alayhi kenn du moom koo ko tëkkaleeg fekk na yonentu bi raw na ko lu bëree bëri ka ca des nag mooy yonentu yàlla Isa mi alquran tudd ne wa rasulan ila bani israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni axluqu lakum min at-tiini ka hay'ati at-tayri fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubrihu al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mawta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum Al Imran aya 49 li ma tuddal yëpp mooy dafa ñëw ne man mi ab yonantu bu yàlla yónni ci banu Israil andil naa leen kawtéef gu bàyyi ko sama borom de may fekk ban bi nii ma jël ko tëgg ko ba mu xamee melow njanaaw ma wal la ma cay wal mu nekk picc naaw danaa fekk koo xam ne dafa gumba ba bët ya suulu ma ko mu xool danaa fekk ku yore jàngoroy baras ba te médecin yi ma wéral ko danaa fekk ko dee ma ñaan ci baax ak yàlla mu dekki li ngeen denc ci seen biir néeg yépp wax ko démb mbaa barki démboog la ko jiitu mën naa leen koo nettali ak fa ngeen def denc ya kon daana wax lu fàddu lii de la yàlla limal yonentu yàlla insaane mooy mayam ndaw may gu rëy yonentu bi sallallahu alayhi am na lu ëpp loola bul fàtte na yonentu bi dekkil na ku dee loolu lam ca def kenn xamut nam toll danaa la ci indi sa buntu spécial yonentu jaabir mos na ñëw seet ko gis ne kii ko xiif la te dara newut ca kër ga mu ne mu dem ca jaabir jaabir dem ca soxna sa ne ko gàtt bi fi nekk nañ ko defar mu rendi defar lépp indil ko yonentu bi donc ko dem maam war mel yonent bi ne ko xooxal mbooloo mi ñu ñëw gaa yooyu ñëw ku dugg lekk ba suur génn sa morom dugg dañ daan def arsalan pari mbooloo rek yonent bi ne bu kenn damu yax nag bañ def nag mu dagale yax ya def la muy def rek gàtt ba fiti fitee waat ak yàpp was ñor waat caag deret jaag tànk yaag bopp yaag ya ak bët yaag weya mu commencé euh, bay fiti fiti bopp ba mu ne ko sa gàtt bi ma joxoon na ngi nii nga lebaloon ko yàlla yàlla fayaat na la ko mu yóbbu ko ca soxna sa soxna sa yéemu yéem yàlla lool xam ni kii kéemtaan la yàlla naa defal buntu spécial li nga xam yonentoo ko jagoo ci dekkil ñu dee kenn xamul ni mu toll loolu ma wax la ci benn la ca boo ne wéral ku feebar yonentu daana fekk ñu feebar ba të médecin yi fu ne gaa yi yóbbu nañ ko mënuñ ca dara mu tafli la raay la rekk ca saasa nga teqalikoog jàngoro ja bul fàtte xaswatu uhud xataadatu bëtam ba fukkeeku woon yonentoo ko delloowaat ba nim génn àdduna mosta wànnentoot yi boo ne ma mbiram ban ba nag man la yonentu bi jël na cëgg ak tàndarma rek car tabaarakallaahu ca xaswatu badar jox ko ab saxaabi yu mu soppeeku weñ mu cay xare di gañe kon boo waxee tamit ne yonentu yàlla Isa yàlla may na ko mu wàccee maydatu mina samaa yi ba alquran ne id qaala alxawaariyuuna yaa Isa bna Maryama hal yastatiu rabbuka an yunazila alayna maydatan mina samaa yi aaya téeméer ak fukk ak ñaar ci suratu maayida man la yonent bi am na lu ëpp loola ndax moom ci boppam indil nañ ko ñam wu bàyyi ko ci asamaan xadis yu bëree bëri ñëw na tegtale loola mu xiif rek ñam bàyyi ko ci asamaan ak palaat baak ñi àmbale ko la ca nekk lépp yonentu ba xéewlu ca loolu moo gën a for kay ndax ñam ñam lu bàyyi ko foofa ku lekk ñamu aljana te demee goo aljana moo gën a for ñam mu bàyyi ko ci asamaan boo ne ma yonentu yàlla Isa yàlla himut ak moom foofa yukallimu naasa fil mahdi alquran wax na ko di wax ak nit ñi fekk mi ngi ci laytaay euh, kooku yàlla defal na yonontu bi sallallahu alayhi demal ci ibnu Mas'ud wala Hakim wax nañ ne yonantu yàlla Isa ba mu juddoo amul dara lu des ci kaw suuf këram lu dul ba daanu màbb yonantu bi tamit keroog ba mu juddoo tabaarakallahu mbooleem këram yi nekkoon ci asamaan yëpp dañoo mujj màbb yonent bi ba mu nekkee ci laytaay tamit fa juddu rek dafa gudd dara commencé wax bul fàtte ne awalul qawli minhu an kabbaral ilahu ilaha wa saani takbiri minhu sanaawu miraatu safa maam xalifa ngees wax na ko mu ne ba mu juddoo la njëkk a def rek mooy allahu akbar loolu mooy baat bi mu njëkk wax ñaareel baat ba mooy laa ilaha illa allahu door a wax ne allahuma rafiqal ala seet su njëkk si laa jëm de bëgg a jëm de kon kii fa juddu rek di wax su ko defee kon nag mbooleem may yonantu yi xam yonantu bi xam na ko te moom ci boppam xam na loo xam ne ñoom xamuñu ko kooku mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama wax naa la ko ci li ko dore ci yonantu yàlla adama ba ni ma la ko wàcceelee ci sayiduna isa alayhi salaam ñii ñëpp seen may yañ xamoon di ko daagoo yonumtu bi am na lu ko am na lu mel loola daagoo ko te moo ko abaloon sax jaral bi ko am loo xam ne nag moom kenn xamu ko ba bay àdduna bi tukki tamit kenn dootu ko xamati kooku mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne ku ko sopp texe àdduna ku ko sopp texe àllaaxira ku ko sopp sa àdduna jàkk ku ko sopp sa àllaaxira jàkk ba mbooleem yonent yi ma limal la sax may yi ma leen doon tuddal ñoom ñëpp ñu ko jëlee ci mayu sayduna muhammad bu seyru yi wax na ko wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al aw rasfan min ad kon yonentu géej géej gi moo tànk mbooleem yonantu yi ndox yonantu gi mooy waame wi moo tànk mbooleem xuur yi ak dex yeeg deq yi ndox bu téyee ndoxa ma rek ñëpp euh, dee ci mar mooy jëmm ju taaru ju rafet di nga xam ne munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul xusni fihi gayru mun qasimi loolu ahmadul busiri yu moo ko wax tagg ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama di jëmm ju tedd ju joo xam ne xaadimu rasul si ahmad bamba nga koy tam ne huwa shifa min kulli daa liman alayhi tamada wa man abahu turida daa xasratin wa nadami yonent bi mooy jëmi saafara de ci bépp jàngoro yonentu bilee moom lay ñëpp sukkandiku ci moom ku ko bañ ñi dàq la nga nekk boroom ak perte nekk boroom ak réccu kon kooku mooy yonentu bi boo demee ca téere ba ñu tuddee jasbul xulóob ma ngi ko cay wax di ko tagg ngir jeex gim jeex ci yonentu bi ak sopp gim ko sopp su ko defee kon mu naan lil mustafa alladi turaam lahu salaatun wa salaam mahamti daaxi kulla am rumtu minal mukarrimi mu ne yonantu boobu daal di kuñ tànn ka yàlla na yàlla julli ci moom sàkku sàkkoos na ci moom salaatu ak salaam ku bàyyi ko ci yàlla ñaal ko moom moom mii de xat mu jot ma tagg ko loolu laa sàkku jëlee ko ca ku tedd kii di yàlla mu defal ñu ko ci moom kon kooku mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yonentu baa ngoog ak mayam yu rëy yim xam léegi nag amoon na lu ma la junjëloon xam na ay may yoo xam ne nag da koo jagoo moom mos naa laa tuddal mayam yim jagoo juróom benn fukki maye ak ñett mu tolloog juróom benn ak ñett yim dund tey nag dama la koy dugalee ci façon may yi ci cër yi cër bu nekk yàlla jox ko yonentu bi dafa jagoo may ak boppam li nga xam ne may la yàlla jagleel ñaari bëtam ya danaa la ko wax wax la may ga yàlla jagleel gémmiñam gu sell ga ak bëñam ya ak may gu rëy gi nekk ca xarxaramam bu yànj ba ak may gu rëy ga nekk ca poqataanam ya ak may gu rëy gi nekk ca làmmiñam wa ak may gu rëy ga nekk ca xolam ba moom daal dana la ko détaayal cër për cër ba nga yëg nag ne sallallahu alayhi wa sallama duhul moromam kenn kuñ koy tëkkaleeg rek nax nañu la jay nañu la ndax moom lim xam moom kenn rek ko am ba bay àdduna bi tukki kenn dootut ko xamati xam naa maa ngi ñëw ak yow nag sofal li ci des ci suñu waxtaanu tay bi muy darsu bi ci may yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallama euh, kii bëtam yaa ko jagoo xam nga bëtam yu sell yooyu la yàlla tagg ne ma saqal basaru wa ma taxa bët du xool lu dul lu ma ko xolloo waaye du jéggi lu ma ko xolloo mukk bokkut ak nit ñi nga xam ne boo leen entré ci sa néeg danañ xool ba xool lal ga xoola xoola xool ba xool duus xoola xoola xool ba xur xur xuru xaat ya suñ demee di nettali rek loola nag bokkut ci ba ko yàlla di hoo ngan la mbir may rëy yëpp la muy taadoog lépp bëtam ba da koo fixé ca lam war a xool rek waaye xool lu ma ko xool loo kon bët ba yàlla tagg na ko ci masaxal basaru wa ma taxa mu gisam nga nga jël tamit ne bëtam yu tedd yooya yàlla jagleeloon na ko mu gis ci lëndëm comme ni mu gisee ci leer boo demee ibnu addi moo génne hadis bi bayhaqi wu ibnu asakir ñoom ñëpp ñoo jël jëlee ko ci sayyidatuna aïcha mun a yonentu de yara fi zalma yi kama yara fi daw yi mun a yonentu dafa daan ci lëndëm comme ni muy gisee ci leer waaye dox ci lëndëm ngi leen torsu bi taalal yonentu bi passé na foofa ba yee gën a leer torsu moo tax du xaajoo lëndëm mënu koo lëndëme ba mu laaj luñ ko niitalee moom kay mooy niital nit ña waaye kenn du ko niital ci dara kon nag bët yuy gis ci lëndëm ba borom xaajoo torsu yooye bët yan bët la jar naa laaj de naka noonu tamit eh, ibnu abbas moo génne hadis bi mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yara bil layli fi xulmati kama yara bin nahaari fi daw i mu ne yonentu ni mu daan gisee ci guddi gi ci lëndëm la daan gisee ci bëccëg bi ci leer kooku kon lu leeral leer la yàlla defal na ko ko naka noonu tamit yàlla jagleel na bëtam ya dafa daan gis li ci gannaawam bu mosaan a julli léegi-léegi mu rukkoo balaa siggi xam saaba yu siggi bu sujjootee balaa siggi xam ñu siggi mu ne leen bu leen ma jiitooti ci rukkoo bu leen ma jiitooti ci sujjoot maa ngi leen di gis yéen ñi sama gannaaw comme ni ma leen di gisee yéen ñi sama kanam sayxaan yi muslim ak buxaari yu ñoo génnee hadis bi jëlee ko ci hadis abi hurayra ya mu ne mu yonantu bi ne hal taraw na qiblati haahuna fa wallahi maa yaxfa ala rukuikum wala sujudikum inni la araakum min warai zahri muslim buxaari yu muttafaqun alayhi hadis bi nag ma bëgg a wax muslim rek moo indi riwaaya bi jëlee ko ci anas ibnu malik mu ne yaa ayuha nnaas inni imaamukum fala tasbiquuni bi rukuuci wala bi sujuudi fa inni araakum min amaami wa min xalfi dafa daan wax saxaaba mi ne ni hee maay seen ilimaan de bu leen ma jiitu ci rukoo de bu leen ma jiitu ci sujood de maa ngi gis li ci sama kanam comme ni ma gisee li ci sama gannaaw kon yàlla lool na ko mayure yooyu muy gis li ci kanamam ak li ci gannaawam moo tax boo jëmee ca tafsir Euh, tabarakallahu ibnu munzir dafay wax ne fi alquran di wax ne alladi yaraaka xiina taqumu wa taqallubaka fi sajidin mu ne lii muy tekki rek kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yara min xalfihi min as-sufufi kama yara min bayni yadayhi kooku yàlla defaloon na ko ko kooku mooy sallallahu alayhi wa sallama xam nga kon loolu xar baax la xam na nañu koy jéem a qiyaas ne dafa amoon ay bët yu ne ca gannaaw yu mel ni bën bënu pusa yére yum sollum tal-tal mënu koo téye du ko teree gis waaye daal lii daal daal jagle la yàlla la bëti gannaaw daal gisuñu fuñ ko bindalee yonent bi donte nag lenn ci borom xam yi wax nañ ko waaye gisuma ko ci mbindam suñ mag ñi te suñ mag ñi nag luñ ba ci diine ji rek waxuñ ko ca mbaa defuñ ko ca rek dafa caa bokkut mag ma waxoon na ko ne lu ngeen gis ma jàpp bu ngeen xeboo jàpp ca lu baax lépp seggal naa leen ko lu ma baax lu ma wan gannaaw rek fa baaxut kon nag moo tax mag ñi wuuteeg ñoom xuurut su ko defee tamit dalul xel kon sayyiduna Muhammad a ngoog ak jagleel ak bëtam yi rek boo ma toppee suba ci waxtu wi ma wax la la gémmañam nga jagoo xoon door a ñëw ak yow wax la la euh, xar-xaramam bu tàdd bu yànji ba jagoo wax la la poqataan ya jagoo woon danaa ko topp ba ca tànk ya nga yëg ne yonent bi du moroomam kenn di ko yàlla defal moom kott dong la ko defal fekkut ca kenn kenn fekkut ko ca sallallahu alayhi wa sallama wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat wa tubaarakul xarakaat wa tudaful xasanaat wa salaatuhu wa salaamuhu ala sayidi saadaat sayidina muhammadin man ruuxuhu qiblatul arwaax wa jismuhu kaabatul asbaax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 bëri luñ koy joxante mënul koo bëree ba sàppil ko ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li sosoon ak yow ci jëmmi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa ak cëram yu tedd yu màgg yi nga xam ne benn bu ci nekk miracle la waxoon naa la làmmiñam waag kawtéef yu rëy yi ko ci suñ borom defal waxoon naa la poqataan baag taflitam ya xataa waxoon naa la gis gi mu gis ca gannaawam ca bët ya donte amul bëti gannaaw waaye xam na gis ak gannaaw waxoon naa la tamit ne dund na ba génn àdduna mosta bibbali loola sax tëbb na ko moroomam yonantu yëpp amul ku ci mos a bébbali ndax bébbali mbiram ngelawam seytaan rek la te ñoom yàlla ñoŋeel na leen sangeel leen ba seytaane amul ci ñoom cër ah moo tax ibnu abi shaybata génne na xadis ki lay kot muslimatu bnu abdil malik du marwaan mu ne yonent bi nee na maata saa aba nabiyun qattu amul benn yonent bu mos a jébbali kon ñaareel bi yàlla mayoon na ko ay nopp yu neex nopp la yoo xam ne dégg ak yàlla sax na ca du dégg ca noppam ya lu dul lu yàlla gërëm waaye tamit du ca ñàkk déglu lu yàlla gërëm nopp ya neex ba lay yëngatu ca asamaan di fa xew sax fa mu toog ca madinatul munawara ma ngi koy dégg moo tax imaamu tirmisi yu génn na xadis ak ibnu maja ñu jëlee xadis bi mu bokk ci xadis yi abi zarin il gafaar yi moo wax na yonentu bi nee na inni ara ma la tarawna wa asmau ma la tasmaun attati samaau wa huqalaha an ta'itta laysa fiha mawdiu arba arba'a asaabi'a illaa wa malakun waadiun jabhatuhu saajidan lillah yonentu bi ne leen man danaa gis lu ngeen dul gis naka noonu danaa ni dégg lu ngeen dul dégg asamaan de yuuxu na xaacu na waaye nag xëy na ci moom tamit nag mu war a ñu ne ko lu tax mu ne nekkul ci asamaan benn espace bu toll ni ñeenti baaraam lu dul ba malaaka ma nga fa jël jëhëm ba ko ràpp di sujootal yàlla di ko màggal looloo tax daal asamaan tamit yuuxu na kon sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa daana toog di dégg lay xew ca juróom-ñaareeli asamaan te fekk ma ngi ci madinatul munawara naka noonu tamit abu nuaymin jële na ci hakim ibnul hisaam qaala baynama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ashaabihi id qaala lahum tasmauna ma asmau qaalu ma nasma min shay qaala inni la asmau atita samaai yonent bi mos naa toog wax saxaba yi ne leen li ma dégg ndax yéen a koy dégg saxaba yi ne ko nun dégguñ dara mu ne de man de maa ngi dégg yëngatug asamaan fii ma toog kon déggam lu sori woon la waaye ànd ak la dégg ga di sori yëpp lu neex yàlla dong lay déglu waaye lépp lu naqare yàlla du tàbbi ci noppab sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla ñoŋeelee làmmeñ wa ba wa maa yantiqu anil hawa ni la ñoŋeelee nopp ya ba lu yàlla gërëmut du ca tàbbi tey tamit nag ma wax la kawtéef kàddoom ga noonu mu xamee dégg gu sori ni la ko yàlla mayee mu am kàdd gu sori yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama bu daan wax loo sori sori da ngay dégg kàddu ga léegi-léegi dangay ngay sax ay haut-parleur takk waaye ñun ñi yàlla nattu suñ kàddu yu soriwuñ moo tax ñi yaajoo ay rajo di aajoo ay baaful di aajoo ay haut-parleur yonentu bi nag kàddoom ga soxlawutoon loola moo tax imaamu bayhaqiyu ak abu nuaymin jële nañ ci barra mu ne yonantu bi de defal nañu discours waaye discours ba de sax soxna ya nekk ca seen biir bergenn ya sax ñu ngay dégg la yonantu bay wax dafa doon yonantu bi di àddoo ak ñoom fañ doon dégloo lu sore sori la looloo waral yonantu bi daanu xaajoo ku koy jottali jottali ku jotul rek moom nag la muy wax joti na ci ñépp kon du xaajoo kenn di ko jot li na ci liilaak lale la moo tax sallallahu alayhi wa am na ci xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci buray dëttu mu ne yonantu bi sallallahu alayhi wa julli na waaye gis nga ba mu ne mel ni lu li ba mu paree foo toll yaa ngi dégg kàddoom googa bàyyeekoo ca baatam bu tedd bu neex ba baat nag moo ko dàqale woon képp kuy wax rek sayiduna muhammad moo la dàq baat bu daan jàng alquran xéeféer yi li ñuy bañ bañ yàlla bañ bañ yonantu bi dañ daan nëbbatu di déglu alquran ja ngir neexaayu kàddu ya léegi-léegi ñoom ñu korosante kenn ku ci nekk gis sa moroom ñu bokk ruus waaye neex ak baatam ga daal mënul ko ko weddee ba mën koo muñ wax ja dafay neex buy àddu tamit dafay neex ci xol yi ba buy wax doo bëgg moom ci boppam mu noppi ngir ak neexaayu kàddoom ga kon ni kàddoom gi kàdduwoo ni la timit neexee benn bis benn bisab jumaa mos naa toog ca minbar ba léegi nag ni ñi ñëw mu ne toog leen waaye toog leenam jooja Abdullah ibnu Rawaxata ma nga xoon ca Bani Xanamin foofa la ko déggee te distance ba lu sori la moom foofa la mujj toog kon moom kàddoom gi àddu na waaye tamit kàddoom gi tabaarakallaahu sallallahu alayhi wa sallam neexoon na ndeysaanam ba buy jàng daal mënoo koo weddee yonantu ba mën a muñ ba mën a muñ jàngam yu neex yooya ci kàddoom gu neex googa nga xam ne bu koy àddu doo bëgg sax moom ci boppam mu noppi noonu timit la ko yàlla mayee xel mu lëng yonent bi moo hëpp ci mbindeefi yàlla yëpp xel xel mi ko yàlla jox ba àdduna sosoo ba léegi xamul kenn ku toll ni yonent bi ci xel xel mu rafet moo xam ne bu la xelalee rek foo teg sa tànk doo surax foo teg sa tànk doo am benn problème moo tax ibnu asakir jëlee na ca wax bub nu mun bi mu ne jàng naa juróom-ñaar fukki téere ak benn waaye mbooleem téere yooya fi gisuma ca li ko doree fi àdduna sosoo ba ba muy ba muy jeexee ku rafetee xel ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi ba tax na xelam mi yëpp buñ ko tegoon benn balance xelu mbindeef yëpp ñu teg leen benn balance xelu sayiduna muhammad dana leen lëng dana mel ni benn peppab suuf booy peesee ci juróom ñaari suuf yépp moo tax kon xel mu rafet la ko yàlla joxoon moo tax yàlla ne déglu leen ko topp leen ko roy leen ko wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kon xelam mu rafet moomu nga xam ne du du juum du jaxase du janaxe la ko yàlla joxoon ba ku ko déglu rek tabarakallahu da danga yëg ne danga nga xam bu àddoo fa ngay teg sa tànk ba moom tamit nag bu mosaan na ñaq ñaqam wa day mujj mel ni parfum loola nag xalimatu saadiya mi ko doon nàmpal moo ko njëkk a trouvé bu mosaan a boot yonumtu ba mu ñaq rek da ngay dafay gis maanaam ñaq wa xet ga neex ba mel ni parfum ay mel ni moom mu mujj nag ngir bëgg lu baax di ko ratt di ko def ca butéel di jaay ñaq wa waaye fu mu koy jaayee boroom parfum ya balaa ñoo mën a jarle rek day fekk ñaq yonantu ba jeex dañuy foon ña ko jënd yëpp dañuy foon parfum bu amul fenn la mujj gi nag léegi-léegi bu jaayee ñi ci ñaq yu tay bu suwaa mu leen ci am ci ñu koy wax ne ko daal parfum bi nga ma jaayoon démb daal fa mel ni mooy première qualité moo gën a neex bu tay bi ci la leen xamal ne nag parfum bi may jaay première qualité deuxième qualité amu ci dafa am jëmm ju tedd ju may boot ñaqam wa dong lay rat rek tabaarakallaahu def ko ci parfum moom laa leen di jox kon moom bu ma a ñaq rek tabaarakallaahu da ngay yéemu ci yàlla ca loola noona moo tax muslim génn na jëlee ci anas mu ne yonantu bi dugg na ci ñun ba mu duggee ci ñun rek mu ne fekk nag mu mu ne ndax nekk na ci yéen ku am ab butéel ku fa nekk amee ab butéel fekk na moom mu ñaq benn mu ne sama yaay ñëw man anas andi benn butéel toog commencé di ratt ñaq wa fekk ba ko yonent bi di wax nag daf ko wax rek waaye fekk ma nga tëdd di nelaw ci biir nelawam ji rek nag moom muy profito yaayu anas di ratt ñaq sayduna muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi xeewoo ne ko yaa ummu sulaymin looy def nii mu ne ko lii dee ñaq la woo xam ne yëg naa ne suñ parfum yi sa ñaq wi moo ko gën a neex hada araqun najaaluhu li tiibina wa huwa atyabu tiibi lii daal xadis la yoo xam ne muslim andi na ko mu bokk ci xadisu anas ibnu malik yi mu wax loola am na ci benn riwaay boo xam ne nag anasa ko wax ba tey mu ne umu sulaymin ñëw na sallallahu alayhi wa sallam fekk yonantu baa ngi nelaw nelaw yu bëccëgam yooya fu yooya te moom nag ku bari woon ñaq la moom yonantu bi umu sulaymin commencé nag di indi ay butéel riwaaya muslim bi benn butéel la waxoon bi qaaruratin waaye bii nag moom ay butéel la wax ne moom la andi waaye bale moom bi qaarutin rekk la waxoon moo tax mu ne daqala alayna rasulullah sallallahu fa qaal fa qaala indana fa araqa wa jaat ummi bi qaarutin fa jalasat taslitu al araqa fastayqada annabi sallallahu fa qaal ya umma sulaymin ma hada alladi tasnaina qalat hada arqun najcaluhu li tiibina wa huwa atyabu tiibi kooku muslim moo ko andi mu bokk ci anas anas ahadisu anas ibnu malik boo jëlee nag beneen riwaaya bi ndax al riwaayaatu taxtalifu beneen riwaaya bi ci anas ba tey dafa ne kaana yaati ummu sulaym umma sulaymin fa yaqiila indaha fa tabsutu lahu nataan fa yaqiil alayhi wa kaana kathira al araq fa kaanat tajmau araqahu fa tajcaluhu fi tiibi wal qawaariiri fa qaala yaa umma sulaymin ma hada qaalat araquka lii mooy beneen riwaaya bi nga xam ne anas wax na ko waaye duhut nag bi muslim tànn bi muslim tànn mooy bi ma la njëkkoon a wax hadis bi dafa ne rek yonent bi daana dikkal umu sulaymin di def nelaw yu bëccëg fa moom bu ñëwee umu miin lalal ko yonent ku bari woon ñaq la na muy nelaweeroon rek mu Sulaymin indi ay butéel fee benn butéel la wax bii nag da koo jamo jamo takk sir xawaariir la wax commencé di ratt ca ñaq wa yonent bi xeewu nag ndax inna lahu qalban ida naamatil aynaani lam yanami looy def nii mu wax ko ko mu ne ko sa ñaq wi lay ratt di ko sotti ci suñ parfum yi ndax mu gën koo joxet gu gën a neex ndax yëg nañ te xam nañ ne sa sa sa ñaq wi moo gën a neex parfum bi gën a neex su suñ parfum yi noonu la ko daari mi yu génnee ak bay xaq yu abu nuaymin tamit noonu ñu jëlee ko ci jaabir ibnu abdullahi yooyu yëpp ñuy wax ñaqaay yonantu bee nañ ci daan jëriñoo ñoo ñoo ñëpp daari mi yu jëlee na ci ibrahima naqe yu ba tey mu ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam guddi nuñ ko daan xamee rek mooy xet ga xet gu neex gi mu daan ñëwee boo toogoo di mu romb ci mbedd rek kenn du ko wax sa morom kenn ku ne yaay xam ne na yonantu bi jaar na fii sànq suñ toogoo ci mbooloo di ko xaar kenn du xaar naan ndax mi ngi ñëw commencé départ naan départ agut moom daal bu la jubee lu ëpp kilomètre fekk na yaa ngi yëg xet bu neex. giy jollee ca jëmmam ju sell jooja ba kenn du ko wax sa morom ñëpp rek ñoo koy yëgandoor ci xet bu naqar ci borom bakkan bu neex ak borom bakkan bu naqar yépp nag ñoo ca xem kooku mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ak la doon xew ca ñaqam wu yéeme woowa tabarakallahu saydatuna aïcha wax ca lu bëree bëree bari abu yaxla ak tabaraani yu indi na ko ci awsat ibnu asakir jëlee na ca lu bëri ci abi hurayrata su ko defee kon kooku mooy yonantu bee ñaqam wu foor wa ñaqam wu tedd wa ak ñaqam wu neex wa wa nga xam ne moo gën a neex kat ak parfum gi gën a parfum wu ci suñu parfum yi tey nag ma wax la tamit guddoo gudd ñaayu yonantu ba yonentu bi ku amoon taxawaay la waaye nag guddutoon ba ne séllaw gàttutoon ba ne kutuñ waaye ànd lool nag ñu njool ña la ñuy njool njool bu ñu àndeek yonentu bi di dox rek yonentu bi moo leen di sut moo tax sayyidatuna Aïcha moo génnee xadiis bi ne lam yakun rasulullahi bi tawilil baini wala bil qasiril mutaraddidi nekkutoon ku njool ba na sellaw duwutoon ku gàtt ba ne kutuñ waaye dafa nekkoon ku diggu dóomu ànd ak la mu doon diggu dóomu googa nag eh, bu daan dox lu njool ya njool njool yonantu bi sallallahu alayhi wa moo leen di sut ci tànk sut leen tamit ci ay wagg donte le moom ku diggoon doomu la woon doxam ba tamit teey te daan yëkkati tànkam ba ba mu yëkkatiku mu door koo teg door a yëkkati moromam ma waaye dootoon ku daan dox di diri tànk ya ba booy dox ci gannaawam di gis poussière baag yooya déeréet maam Khalifa Niass mi ñu porte leen doxam ba daal dafa ne daal doxinu yonantu bi daal bu la réeree demal ci xuur nga bàyyi ba yàlla ji taw boo nga seen ndox may wàccee ci ca montagne ya yool googa muy yool na muy teeyeeg na muy rafetee su ko defee mu ne doxam ba timit tabaarakallaahu noonu la meloon mu mel ni ndox mu sotteekoo ci kuur wala mu mu ci montagne su ko defee di daa di di bartandiku jëm ci kuur noonu la daan dox mu ne ñaareel bi timit nag ah bu daan dox dafa daan nekk ku daan jaayu buy dox da ngay yëg na muy jaayoo nii di jaayu jëm ndeyjoor léeg-léeg mu jaayu jëm càmmooy waaye moo tax mu ne kaana yamshi taqalluan yatakaafa bin siyaabin kama yasilul maa'u wa yatulu tiwaala xiina yu maashi xasurat an maqaamihi rufaqaa'u kaabuhu manhusun wa kaana masiha rijl li aydan wa rijluhu xamsaa'u noonu la ko waxee kon bu daan dox dafay buddi tànk ba ba mu yëkkatiku mu door koo teg buddi moromam ma ba mu yëkkatiku mu door koo teg ànd ak di jaayu ci ndeyjoor ak càmmooy dox ba teey nag ànd ak dal ba mel ni ndox mu wàccee ko ci montagne di jëm ci xuur bu demee ba sóobu ci ndox nag dox loo njool njool yonantu bi sut la ku bañ yonantu bi sut la daal bul doxandoor ak moom waaye buy dox rek nga yëg ne moo lay sut nekkoon jëmm ju tedd joo xam ne euh, tabaarakallahu xar xaramam ba dafa wërngalu woon waaye xamutoon xóot xóot sukk bakkanam ba dafa yëkkatikuwoon woon comme ni nga xame ne daal sukk bakkanu naar yi ni ñuy mel noonu ñoo ko niru waaye yonent bi moom niru leen dafa yore woon ab jë boo xam ne dafa ndét diggante ñaari xefam ya dafa amoon doggante waaye xef ya lëkkali naka noonu tamit ku sëqoon ay héen la héenam ya dafa sëqoon waaye tamit xefam ya dafa sëq dafa mel ni tamit bëtam ba dafa mel ni luñ tus ngel ra xel maanaam tamit leex ya rattax lool ba daal boo ko xoolee na gis ka nagu bëtan ca sax te mooy bët yoo xam ne dafa rëy tabaarakallaahu la ca war a weex weex tal la ca war a ñuul ñuul kook bu ñaqaan da ngay foog ne ndoxam wurus lañ sotti ca xarxaramam ba araqul wajhi minhu kaddurri taxju wa ala su ko defee nag arqu tiibi arqu tiibi arqi laysa taxki ci minal miski nafhatun wa shazaa'u mu nekkoon koo xam ne tamit dafa amoon sàkkaraw yàlla ndox bëñ ya dafa amoon ndoxu bëñ ba buy ree da foog ne dañoo njam tuñ ya dañoo njam kon siiñam ma buy ree da foog ne dafa gallax ndikoo ndoxam wurus boppam ba nag dafa rëyoon borom bopp bu ndaw du mën a sëf lu bari bopp bu rëy la ko yàlla joxoon naka noonu tamit nag ku guddoon euh, kii la euh, biir biiram ba nekkatoon lu ne déggaaral rek mu amoon tamit ay karaw yu ca nekk boppam ba timit nag karaw ya ca ne woon yii dafay lemu lii yëkkatiku ku yaatu woon ténk la ku nooyoon ténk la ku guddoon euh, maanaam ab peer la waaye ténkam la tamit na mu yaatoo ni la yaatoo ci pabe su ma la doon nag portaleel couleuram ba dama lay wax na la ñuulutoon kóog ba mel ni puruñ waaye xeesutoon pecc ba mel ni puune waaye daal xonq xonq buñ jaxaseeg weex weex la ba mel ni daal nenab baa wala nenab cokeere yow ma dëkk ca àll ba miin ko couleur Seyduna Muhammad ba noonu la mel bu mosaan di wax nag bay ree ree xam ya du passé muuñ dexkuhu lam yaadu tabassuma lakin mastaxafatu indahu sarraau mosta passé muuñ ahmadul busiri yu wax na ko soo ko féetee gannaaw nag ca xóot xóotu mbagam càmmooy ma am na xaatamu nubuwata ca la ne ñi bind ca laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi siriya muhammad fa innaka mansurun xam riwaaya bu ne ña ci bind allahu waxdahu la sharika lahu muhammadun rasulullahi sir innaka mansurun lii lañu bindoon ca xóot xóotu mbagam càmmooy ma gannaaw biñ ko tamponé tamponé bi ñu tamponé lu yi yonent bi lañ ca mujj a moo tax nga jàng wa xaatama nabiyiina mu bàyyi ko ci xaatam ji firi tampon ñenn ngi jàng wax wa xaatimi yiina su ko defee xaatam booba nag ku ko mos a gis rek dem aljana am na benn saxaabi yu bu féex bu yeewu bu muus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos ta mos di wax ak moom di kaf rek. ba tàpp ko dóor ko dóoram gannaaw dam ko tàppee nag ba dóor ko sa tamang ko dóoree ci gannaaw ca xóot xóotam mbaggam ma mu ne damay fayu te yonent bi bëggu ta xamee kenn xaq saaba yëpp wër ko yow sa sa ndax yow sa xol bi may na la ngay jël sa loxo di ko teg ci jëmmi yonent bi mu ne damay fayu moom ma dóor damay fayu yonentu bi ne ko gannaaw gaangoo kon nag fayul waaje ne ko bi nga may dóor dama wogoon sama gannaaw gi moo tax tamit bu may fayu nag daal dangay ngay wog sa gannaawu ba nga xam ne yére du ko mën a protéger kenn du yonentu bi bëggu taameel kenn xaq ah moom tamit nag mu wog yére ya rek saxaabi yu ba gis xaatamu nubuwata foon ko ba di jooy ne ko sa gannaaw gu tedd gu sell gi kenn xalaatut di jël yar wala jël loxo di ko ca teg xaatamu nubuwa ba rek laa bëggoon a gis gis naa ko talul ku ko gis da nga dem aljana kon ndeke tamit léegi-léegi nit ki dana muusa muusa muus ba dem aljana nit ki léegi-léegi mu dofee dofee dofee ba dem safara kon kooka muusam googa noona jariñ na ko ba tax na mu may ko ngëneel yu rëy foor yooya salmaanul farisi wu xisaam lu gudd la fa mu nekkoon di jaamu safara bam jaar ca ladd booba di ko liggéeyal ba mu koy yeewee nag mu xam ne ko ndax am na jeneen diine ju ñëw mu ne nga ah, kay suñ diine ji day folleeku diine ji gën ci diine yi yàlla war caa yoon yonentu bi gën ci yonentu yi mi ngi ñëw soreetul sax te suufu hijaas la yonentu ba di nekk dëkk bu bari tàndarma lay doon ca la départ nag di xeeñtu ji yoonu yontu bañ jaay ko jaam dinañ mës a wax sax waxtaanam ndax histoire bu am solo la lu ci mën daa am nag làbbe ba joxoon na ko ay preuve ne ko kooka nag dana lekk hàddee du lekk sarax boo demee ca xóot xóotu mbaggam càmmooy ba xaatu mu ndubbu wàng boo ko xoolee dafay mel ni bouton manto wala mu mel ni nenab pitax wala mu mel ni xaafu maam yàlla ay kawar wër ko boo ko compter maam El Hadj Malick nee na passé wul ñaar fukki kawar kenn du suñ mag ñi su ko defee tamit nag moom mu topp jeexital ba nag toog na rek yonent bi toog benn waaye dem ca toolog tàndaramam ba indi na ne ko lii de sarax la yonent lekkut jox nit ñi lekk njëkk loola fekk dafa njëkk indi yeneen tàndarama ne ko addiya la yonent bi lekk. ba mu indiwaatee ne ko sarax la yonantu bi lekkut mu ne am na ñaari preuve benn ma dese ma dugg ci diine ji fu yonantu ma sa toogee rek mu fetee ko gannaaw di xool naan léegi tey mu defar mbubam mi rek ma gis la ma war a gis su fekkee moom la ci la jibril ñëw ne ko nag kii nekk ci sa gannaaw daal yaa ngi koy gis de ñetti preuve la doon seet pour mën a dugg ci lislaam gis na ñaaree benn baa ko desee foofa rek la yonent bi nag xaw a lox ki gannaaw ga rek nag mu gis xaatam ba rek daanu ca fóon ko sukk ci kanamam ne ko ashhadu an laa ilaha illa allahu wa annaka rasulullahi ki salmaan nag duggee ci lislaam yàlla dogal nag mu tarde xare badar ak xare yu bari ndax jaam la woon ndax dañ ko nax di ko ci xeeñtu yoonu yonent bi ci dañ ko jaayee jaam day kooka jaayaat ko ba mu yegg ci madinatul wara yàlla dogal fi mu toogee benn bëccëg rek yéeg ci kaw tàndarma gi di witt njaati jéem jooge di sangam ba am benn xaritam bu ñëw seet si ko ne ko waaye banu daal xaylatu ñoo féex maa ngi leen bàyyi ñu ngay tertu benn waaye ñu ne ab yonentu yàlla màkka lay bàyyee salmaan ba mu déggee loolu rek ca la lox daanu ca garab ga sang ba gëdd ko ne ko demal nga dem liggéeyi ci la ñëw nag gannaaw si gi ba mu wàccee la topp xeñti yooya ba am ñetti preuve yu dugg ci lislaam tarde nag ay xare ñëw ci yonantu bi ne ko daal dama bëgg nga ñaanal ma ma nekk gor su ma sañoon foo xoote gis ma sa gannaaw moom giñ ma moom tax na moomatuma ci sama bopp lu bari yonent bi ne ko demal nga wax sa sang nga jotoog mboom lu mu la wàcc la wax rek ñëwal wax ma ko dem na kooka ko fukki nu daar ñaar nga may jox jëmbatal ma ñeenti téeméeri taati tàndarma ba mu meññi ñor nga witt ko jóor ko ci sama kanam door di gore sang bu soxor la ko yàlla joxoon fam ko waxee nag yonent bi ne ko ah, baax na wax a yi na lu waaye am ci wurus lu mu tuuti tuuti na ma jox am ku ko andil wurus lu tolloog nenab ganaar yonentu bi ne ko demal nga jox ko sa sang bi mu peese ci ñeen fukki kilo yi mu wax li ci des nga andil ma ko te loola matul benn gramme kon yonentu kenn du moom yàlla may na ko lu tuuti mu mën caa génnee lu bari comme lu bari mën naa génnee lu tuuti mais yàlla may sekkare lu tuuti war nañ caa mën a génnee lu bari départ na jox na ko ko sang bay peese muy daanu muy peese muy daanu ba lañ waxante woon ca wurus wa mat te la ko yonantu bi jox dara wàññeeku wut mu ñëw joxaat ko yonantu bi mu des nag léegi jëmbat tàndarma ya yonantu bi xoote am jëmbatam tàndarma saxaaba yi ko am jëmbat indi ñoom ñëpp ñu dem yonantu bi ne gas leen rek waaye bu kenn suul man rek maay suul yàlla dogal ñuy gas muy muy ñuy tubbi muy suul ñuy tubbi muy suul benn taat rek la ci Omar ibnu Xataab suul moo tax taat ga sax mujj màgg dafa mujj dee yëccale si yëpp yu doon tubbee ko suul yàlla dogal tàndarma ja màgg ca at ma tontóor ca at ma meññ ci at ma ñor ci at ma ñi wittu ko ca at ma salmaan gore ca at ma kenn du sayduna muhammad te xam nga ne tàndarma soo ko jëmbatee gudd fanay tàng lekk ca meññant ma yooyu tey yëgën a gaaw a ñor lu mu gaaw gaaw dana mat juróom-ñaari at waaye moom mennam xat mi ci la jëmbat mu màgg ci tontóor ci dijj ci ñor ci ñi ko ci salmaan gore ci kooku mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ak mayam yu yooyu ma tuddaloon la ko ca ñaq wa tuddaloon la ko ca làmmiñam wa tuddaloon la ko ca noppam ya tuddaloon la ko ca bëtam ya tuddaloon la ko tabaarakallaahu ca njoolaayam ga tuddaloon la ko ca doxinam ba tuddaloon la ko ca ñaqam wa su ko defee kooku mooy yonentu yàlla muhammad di sayyidul awwalina wal axirin di jëmu ju sell joo xam ne ku bañ mu gën la bul juddu ku bañ mu mag la bul xam ku xam rek yonantoo la mag ku juddu rek yonantoo la gën kon nag njoolam gàngoo gudd ñaayam gàngoo nekk toon gudd ñaay bu ne seetlawu waaye gàtt toon ba ne kutuñ bu daan dox doxut kuy diri tànk ya waaye dafa daan buddi ba mu yëkkatiku tabaarakallaahu timit mu teg moromam ma door a buddiwaat teg moromam ma maam xalifa ne bu la réeree daal doxinam wa xaaral rek ba yàlla ji taw nga taxaw ci montagne na ndox may sotteekoo di jëm ca déeg ya wala muy sotteekoo di jëm ca xuur ya loola boo ko gisee rek gis nga doxeenu Seyduna Muhammad ndax moom tamit nag yàlla mayoon na ko daana gàmm ba yaram wa tàng rek mu ne fay leen làmp yi leeru Seyduna Muhammad ñëw na làmp yi leer naññi mu ne tamit fay leen làmp yi ma wan leen ni daan yonantu bi daan doxe man a gàmm nag mënta paase nett la ca téere ya te doo ko xool waaye wane nag moom fa la mën a gàmmu xem yàlla defaloon na ko ko te na mag ñu may dégg ci lii may wax ñoom seen bopp fekkee woon nañ ko ñu fay làmp ya làmp ya ne la leer naññi boole kook timit mu mu gàmm ba ci digg ba ñi xàll géew ba muy wane ni daan yonantu bi di doxee sallallahu alayhi wa sallam ku mel noonu nag bu bindee ci yonantu bi tabaarakallaahu dafay nekk lu wér a wér day nekk tamit lu ñuy mën a jëriñoo lu ñuy dolleeku te du doon lu kenn mën caa dolli dara li nga koy gis noonu nag moom yonantu bi ku laa biir la woon ah, daana kaf ndax boo nekkee kilifa nag ñëkkal sa xarxaram sa njaboot duñ la ñeme waaye léegi-léegi nag mu wàccee xarxaramam ndeysaanam ba njabootam gi ñeme ko di kafa ndoor ak moom waaye ànd ak loolu lépp nag kafa moom du génn dëgg mukk dëggam dëgg la kafam tamit dëgg la moom sallallahu alayhi wa kafam sax bokk na ci mos naa toog benn jigéen ñëw ndeysaanam yonent bi xool ko ne ko waaw yow tey sa boroom kër bët ba weex na di ndaw sa commencé jooy yonent bi ne ko kaay ma leeral la ndax am na kenn ku ne ci ñun ci bëggam bëtam mel nam mel te amul lu weex ndaw sa door nag ree mel na màgget mos naa ñëw ci moom di ko ñaan loo aljana ngir mën a kafam rek yonent bi ne ko màgget du dem aljana màgget ma commencé jooy fekk jooy jot na di jël suuf di ko sotti ca bopp ba mu wax wax mu ne ko dara màgget du dem aljana xam naa bu ma màgget yi déggee nag te firiwuma ko dañ ma mereyaale sax yonent bi ne ko kaay ma firil la ko nii nga màggetee bu la yàlla dugalee aljana nga seey deseetoo bëñ deseetoo bët deseetoo dégg nooy bànneexoo kon yàlla bu la naree tàbbal aljana da lay tëggaat ba nga nekk ndaw ci sa fanweeri at ñett mu dugal la aljana ci aas boobu dootoo deexati dootoo màgget xanaa jàngoo alquran ah, fa suratul waaqia inna anshanahunna inshaan fa jaalnahunna abukaaran waaje nag ndaw sa nag door di ree kontaan lool nag bég lool fekk tamit bég nag ak ree tamit jot na man a tax na benn waaju fonk boppam mas naa ñëw war ak gëléem ñëw di seet ci yonent bi ñëw toog rek wàccee gëléem ngay yeew yonent bi ne ko doomi gëléem gi ngay war nag waa gi boppam nag foog na yonent da koo xeeb mu mel ni ko xaw a mer yonent bi ne doom mooy luñ jur rek kii kay doomu gëléem la gëléem a ko jur rek lay tekki waaja nag door a féexaat mën a xam la cay war a mën a nekk nag door a kontaanaat waaye nag ki ko gënoon a mën a kafloo di ko reeloo ndax kilifa goo gis nag am na ci koo xamee ne nii moom bu wéeteeg moom rek wala bu ko fekkee ci mbooloo rek reeloo ko mënoo ca dara te gënoon a man loola nag mooy Nuaymaan Nuaymaan ku daan reeloo yonantu bi la wax la maawu siraan koy bind na wa Nuaymaanu yudhikul badra xiinan bi suway biitin xiina kaana siraa'u Nuaymaan mi ci boppam bu demaan ba ba bëccëg jot day dem ci marché madinatul munawara ba rek seet fur wi ya gën a baax ci diggante orange jaag banaana jaag tàndarma jaag ya ca xaju ne leen lebal ma lebal ma ba ngoon bu ngoonee jox naa la rendez-vous ca kër yonantu ba su ko defee gaa ya lebal ko rek buñ toogee ba ngoon jot nag commerçant ya ruuxle ñëw fekk ko kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom tàndar bi ne ko sama tàndar ji laa ñëw pour fayeeku ko borom banaana bi ne ko sama banaana ji borom orange bi ne ko sama orange ji su ko defee mu xool yonantu yonantu xool ko mun ne ko yaa ko lekk yaa koy fay dama dem ba gis ne lii baax na ci yow rek taxoo ma njëgam ma leb ko ci sa daraja lekk ko ci sa jox la ko yow lii nga maye ko lii nga xéewloo ko yaa ko moom fayal yonent bi ree làmbu poosam fay bor ya daana ko reeloo ba ni mu génn àdduna sax bañ koy rob yonentoo ko taxawee ndeysaanam bi ree saaba ne ko mbaa jàmm la mu ne ah kay jàmm la yàlla na yàlla yërëm Nuaymaan dund na di ñu reeloo génn àdduna di ñu reeloo keroog la yonent bi wax loola ñu ne ko ci naan mu ne moom de malaaka yi ko war a ñëw pour auditer ko régler jëfam ji ñu ngi nii maa ngi leen gis waaye malaaka yi daal dañoo ñëw rek mu mel ni ku leen xaw a gëdd toroxal leen ne leen yéen a dem dayo yéen a yàkkamti te gan gu ñëw summeegul ay dàllam sax ngeen ne përëx di xeg si nii te gan ngoo xam ne dootul demati mënu leen a xaar ba ci kanam ngeen door a ñëw dee na yàkkamti waaye te xëpp li ñu leen bindee ndeke yonent bi dégg na loola gis na ko yonent bi di ree ne waay waay na yàlla yërëm Nuaymaan dund na di ñuy reeloo génn àdduna di ñuy reeloo su ko defee kon nag kooku mooy Nuaymaan yow fokkat bi di ab comédien bu ci dëgg nag ne kuy reeloo nit ñi bu ëllëgee da leen reeloo xale ci aljana ku la ko wax yow musique seen bi bu ci dëgg naan kuy bëggloo xale yi am naa am na aljaana joo xam ne kuy bëggal xale yaa ciy dugg ku la ko wax yow muy fecc mbaa ngay bàkku bu ci dugal sa bopp ca loola eh, déeréet nag ba ñuy wax loola bégle ci luy bégle bégle ci lu lay lu bégu nag mooy lu nekk dëgg waaye lépp loo xam ne caaxaan la ak fox yu ci aju loola boo ci bégalee nit da ngay rey xolam yaa ngi koy wowal muy gën di ree xolam gën di wow kooka taxut ñuy wax waaye béglee ci luy bégu ci lu bégu waaye lu béguwut ku ca bégal nit ña boo légee da nga ko layoog yàlla ah, kon nag mu mel ni mën ngeen teg seen baaraam foofu bu ñu fi yàlla indee suba ci waxtu wi nag ma sof ak yow ci yonantu beeg takki ndeeram ba wala ne jëmm la joo xamutoon takki ndeer danaa dugg yow ne dund na ba génn àdduna weñ musu koo dal danaa dugg ak yow tamit ca yonantu boobu deretam bu mosaana nàcc saaba yi dañ daan profité di ko naan danaa la wax tamit ndëggoom lu tedd loolu fu mu ko mos a dëgg ak jeexital ba mu daan def xatta danaa la wax loola boo ma ko toppee par benn yëpp naa la ko toppal ba ci ay nelawam ba ci ay doxinam lépp mu nekk ay miracle yoo xam ne ci jënn jëmm dong lañ koy fekk muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama sayidul awalin wal axirin waaye loolu nag incha allahu bu ñu yàlla maye dund ànd ak fekkee talak wér suba ci waxtu wi lay doon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa